opération defar mbedd Touba yi Baye Fall yi nag ànd ko ak waa Touba ca kanam te jii nag ñu xëyoon fii ci tokkoor bi tokkoor bi nag buñ ko waxee xel yépp dem ci ndox mu bari moo xam ne dina fay daje saa yu tawee waaye nag bi Touba ca kanam xalaatee ne tokkoor bi kat il faut ñu wut ab kanaal mu jóge ci tokkoor bi waaye dem ba Daaru Xudóos ca canal ba ci la Baye Fall yi nag daal di jël li nga xam ne moom mooy gas canal yooyu fas yéene koo jële fii ci tokkoor bi àgg ca Daaru kon ñu àndandoo xool liggéey bi nga xam ne Baye Fall yi defal nañ ñu ko tey ci ndigalal Touba ca kanam إلا يفسخ دنا ومالا وكل من ستمني أولاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربيا فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مساء يا رب العالمين وجل بناي بنا وافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي وجل بنائي بناء الاعتداء والتقي عني كيد كل سيتداء والتكفني دراسة سيتاني وغلبي الباخن في الأوتان ولتكفر عني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد والتزفا جملة ما يفسدان يدي وعن داري سريعا عن نيسوان ولتدخل المسلم في يدي وفي الدار وثابتا حب الهادي وفيم وآلما وآلما يهمني ولتكفني جملة ما يعين ومسكني سلي من الفجار وامرنا ملال بما من جاري واجل ربي مننا المعجلا جالب من مننا المعجلا yaa xayu yaa mbokk jullit yi mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride mi nga xam ne nii moom lépp loo fi xam ne nii moo fi yëngu mooma te muy jëwriñu Touba ca kanam ñu nekk fii nag ci Daaru Xuddoos di tàmbali liggéey bi nga xam ne nii moo di liggéeyu defar tuyau yi nga xam ne nii moo jëm ci assainissement bi ngir. ndox dootul taa ci dëkk bi xam ngeen ne Touba kanam moom ba mu tàmbalee ba léegi lii mooy sababam defe naa ne lam fi njëkk a def ci inondation la woon te moo di ci li nga xam ne nii mooy fële ca ndaamaatu ca jumaay sëñ Saliou jë loolu la ñu tàmbalee woon boobaak léegi jóguñu ci di liggéey loolu ba léegi nag suñu jaar fépp jarut ma ciy ñëwaat defe naa ne mbokk taalibe yi ci bari xam nañu ko waaye ren nag moom priorité numéro un bi di assainissement wu Touba maanaam fexe ba mbedd yi leer nañ balaa màggal incha allah. waa liggéey bi fii tey lañ ko tàmbali moom waaye nag fekk na ñaar dafa bokk ci ñaar fukki sites yi nga xam ne nii moom la Touba ca kanam fas yéenee defar ba nit ñi mën cee jaar boo seetee ba ci jëkk moo di fële ca ñu doon defee lancement bi ca gaaw bële weesu di tolloog la huit nga xam ne sëñ Mountakha moo joxe ndigal ne nañ tàmbalee foofu mooy ci yoonu Mbàkke yu ci sel bi waaye yoonu Daaru Rahman nag boo demee ca 30 bële ca kër sëñ ñaan Joob ak mbedd yi ci bëree bëri tàmbali nañ ko ba liggéey ba sori na lool ba latiri sax ñoo ko fay teg. Baye Fall dañ leen a woo ci liggéey bi xam nga ku ne murit ku ne ba ku ne murit ne Baye Fall Baye Fall yeeg Baye yi ñëpp fi nekk waaye jëriñu Baye Fall yi nag muy sëñ Moustapha Fall Mbar ak sëñ sëñ sëñ sëñ Fallum sëñ Modou Aminta dañoo jàpp tey ne ñoom dañuy ñëw ngir tàmbali nu di leen siyaare ci loolu. ñëw tàmbali liggéey bi fii ñu xool nag lii nag mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu ayca murit bi dëgg moo tax ñu ñëw fi tàmbalee fi tey. lii ñu tàmbali nag xam naa ne lii de moom ba ba ba fële du du yàgg mu yàgg waaye nag liggéey bi day continuer dañoo fas yéene balaa màggal gi dañoo fas yéene balaa màggal gi di ñëw yoon yu mag yëpp wu mel ni wii nii ak wu mën doon ak fu mën di nekk mu am jaarukaay ba nit ñi mën a dem ci jumaa ci siyaare ak nuñ ko bëgg ولا جنا بجاي من دعوى عنا كسبا ولهوا عنا ما لا يغني بك وادابا اخينا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمرة عوس من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك ارجى عندنا من أمل نسيب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين ولا تواقسنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في زائر وباتن وبالخبور وكن معيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجم قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه ناسعي وصلي الرزق صلاة دافئة هنا وباء من جراد مانع هلي والهال بعبد السلام وصابي ومسكني ويا سلام وسقي مسيح وسبني عما يصف في دارين عني عما وطيرا قلبي وسدني حياة وعيني في طاعة يا رب يا